alhamdulilahi rabil alamina chahru euh, ramadan allazi unzila fiihil quran hudal linnaasi wa bayinaati minal huda wal furqaan ndax moo waral lii yëpp weeru koor moo waral lii euh, di sant yàlla nag mi ñu may daaw ñu def ko ren tamit ñu defaat ko ci kàttanam bu mbaaxam man nag social bi ma ko commencé à l'âge de 26 ans laa commencé def social euh, bu njëkk dama naan togg di yóbbu ci jàkk ji mais bi Covid bi ñëwee Euh, mënatuma toog di yóbbu ci jàkk ji si laa commencé nag di def kit yi nii di ko jox nit daan naa def sax ay légumes parce que bu ngeen gisee daaw di ngeen gis ma def ay légumes mais am ñoo ne amuñu frigo donc boo leen joxee légumes dama gis ne légumes yi day yàqu parce que des nga dugg benn kër gis ñu teg kees gi noonu loolu moo tax ma ne comme ñenn ñi amuñu frigo je préfère léegi ma bàyyi euh, kii bi li ma naan def ci légumes ma renforcer ko ci ceeb ak diwlin ak suukar dolli ko ci jox ko nit ñi ñaata bénéficiaire d ma ko wax ñaata laa ci def du ko wax ndax euh, sunu borom bind bi mu ñu bind mënuñu ko ko fay ndax lépp fii ci àdduna xéewal la wen taxudu nexmatallaahi laa tux suuhaa ngelaw lii ñuy nooy sax xéewala la sunu borom la donc ñun yàlla amuñu fayam li may joxe nag samay dëkkandoo ñoom ñooy ñoom ñoo ciy prioritaire parce que ñoom ñoom laa dëkkal tey jii su ma dara daloon ñoom ñooy njëkk a ñëw moo tax damay naan fii bugguma tëb kenn yàlla xam na ne kër yi bugguma tëb kenn ngay dugg ci benn kër sax am ñeenti njël wala mu am ñetti njël damay rayante def ñeenti njël yooyu dugal ko ci benn kër parce que du ma bëgg kenn mer parce que loolu samay dëkkandoo laa ko may waaw te dëkkandoo moom mooy lépp daal. équipe bi may accompagner tamit vraiment damay ñaan yàlla yiw bu ma fi am rek yàlla naa ko bokk ak ñoom parce que lii may def nii politique taxul ma di ko def. parce que dafa am bés boo xamante ne dina ñëw mu yow ma tub la sarairu fa maa lahu min quwwatin wala naasir bés boobu dina ñëw. te bës boobu bëgg nañ yàlla sunu borom suturaal ñu bëgg nañ yàlla sunu borom jéggal ñu moo tax ñuy def lii ndax yàlla moo ne umaa tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajiduuhu indallaahi kon nag loolu moo tax lii ñu koy def di ko defal yàlla sunu borom rek moom donga moo tax ma di ko def deful ma ko ngir keneen defu ma ko pour am militant defu ma ko pour dara ndax li ma bëgg ci sunu borom moom moo ëpp militant dama bëgg su ma génnee àdduna mu yërëm ma yërëm samay euh, samay njaboot yërëm boolu mu jullit di ñaan yàlla rek ñu dugg ceeg bisimilahi rahmaani rahim génn ceeg alhamdulilahi rabil alamina ndax weer la boo xamante ne benn yoon la ci at mi mu am ci benn guddi goo xam ne moo moo gën ñëpp muy leelatul xadri donc ñi ngi ñaan yàlla lépp lu ñu ci woor ak lépp luñ ci lépp lu ñu def ci bàkkaar ci at mi parce que ay doomu aadama donc lañu kenn matul ñi ngi ñaan yàlla mu jéggal ñu ñun daal njégalu suñu borom rek la ñuy sàkku seekuwuñ ci koom-koomu àdduna koom-koom bi tam ko amee ci lii rek lañ koy def donc njégal bi daal mooy li nga xamante ne moom moo jiitu ci lii ñuy def nii